bon ñooñu Grand Yoff. donc fii Grand Yoff Dakar la tout simplement pour waaw baal leen ma baal leen ma baal leen ma demee nii. waaw. waaw. waaw. génn fi waay awoon na le nañ arrière tuuti waay nañ jël ginnaaw tuuti ñu mën a jël dañu waay ko jëm voilà donc le maire Barthélémy Dias qui s'apprête donc à allumer les motopompes fii nii ci Grand Yoff ah oui boo foto rek nga may ñu ngay filmé da ngay vidéo boo dugalee foofu du baax si ñun de ma ne boo dugalee du baax si ñun de. teg waaw fàccee loxo tuuti. door door na ah, may ko dooral. Ah, waaw waaw. saa waay loolu rek. suñ koy pompé zone de captage. wala am am na regard yi nekk foofu lañ koy def. waaw xam nga chef ma xaw a si xam tuuti rek. voilà. il nous a donné aussi il nous a donné aussi 500 litres de carburant pour nous accompagner. qu'est-ce qui vous a donné 500 litres de carburant. monsieur le maire. on a versé 5 motopompes. la semaine dernière. Mhm. lors des premiers heures de pluie. alors 5 motopompes du maire de Dakar. reconduit en votre personnel encore Donc pour nous, Grand Yoff, monsieur le maire Barthélémy a beaucoup fait pour nous. koy sant ñu ngi koy gërëm. ce que j'ai dit dama ne bi ñu njëkkee bi ñu taw bi njëkkee am dina ne cinq motopompes yoo xam ne ñoo ñëw may ñu ko fekk si 15 yoro ñun dugg ko si kër yi. tey mu ñëw encore une fois yeneen trois mots boobu yoo xamante ne bu nekk quatre cent mille heure lay jël parce que moto pompe bi ñu njëkkoon jox ci kër la mun dem mënul jël ndox mi si jumaa ji mais moto pompe bi mën na jël ndox mi si jumaa ji yóbbu ko si bassin ak cinquante essence accompagné pour ñu am départ bu ñu départ donc ñun waa Grand Yoff ñu ngi lay sañ lay gërëm te taxawaay bi gis nañ ñu ngi ñu jàppee merci beaucoup auto yaa ngi nii donc fii ci Grand Yoff comme ni nga ko waxee rek le maire Barthélémy Dias est venu pour remettre des motopompes donc aux populations ou même aux zones inondées. voilà yeneen motopompes seen bopp et là on les remerciements des populations. mooy waxoon ci campagne bi rek am ngeen meel. Uh-huh. waxoon naa am ngeen meel. bu defee daal dañ koy wax ñëpp dégg ko. te il le fait. ñoo ko ànd ak moom aussi ñoo ko ànd aussi. merci merci merci. ñu dox ah ñu dox. voilà. yeneen moto pompe yaa ngi nii. ah tuuti sax taxaw waaw. sëñ bi dafa naan rek.

ah jàpp ngeen ma tuuti rek. c'est 500 mille. waaw c'est pas loin moo laa ñu dem fii fu ñuy woowee zone de captage donc ànd ak ak le maire Barthélémy Dias tout simplement pour. Euh, pour xool bassin de rétention bu zone de captage voilà parce que aussi on nous dit que foofu tamit dafa inondé jël avancé leen ci ginnaaw doole man maa koy wan fan lañ jëm. avancé avancé un peu avancé. moo doon nit. ak yàlla doon nit. avancé leen Bas yow. voilà donc il est là maire de Dakar ci marche dans les rues de Grand Yoff pour dem fële ne avec ah bon. et qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait le maire de Dakar. Uh-huh. aha aha aha aha merci beaucoup donc kii mooy Bassirou Sam il est au maire de Grand Yoff jot na wax lu Barthélemy Diaz moom a équipe am nekk di góorgóorlu fii ci Grand Yoff déjà ci mbënd bi nee nañ jotoon na indi ay moto pompe en plus en plus de ça mu dolliwaat yeneen mbo moto pompe yoo xam ne am nañ capacité boo xam ne dinañ mën a ngàcc ndox bi euh, très rapidement. voilà le maire Barthélemy Diaz est en train de se diriger au niveau de la zone de captage plus exactement pour euh, mun xool dégâts yu ndox yi def foofu avec.

sondage voilà ñu mën leen a am. day jot ci suuf. wala côté bi. day xaw a pivoté. voilà jël tànk yi ñu gis moom. non dafa métti métti Voilà, donc nous notons la participation du premier adjoint au maire, M. Abbas Fall, donc qui est aussi là. C'est ça Ils vont tester ça. En fait, Donc, nous sommes de passage côté. Ah, D'accord, ok. dugalal ma sa oto ak fu ko mën a denc jantal la jantal la maire jantal la

parce que je rappelle que lu ñuy woowee assainissement ce n'est pas une compétence transférée mais n'empêche le maire Barthélémy Diaz da si waslu ak jéem a xool na lay soulager les populations donc de Grand Yoff donc voilà à travers diverses actions qu'il est en train donc d'entreprendre voilà donc euh, lu ci mel ni jënd tout simplement ay moto pompe jagleel ko population bi ak i yeneen ak i yeneen incha allah Voilà. donc mooy nii ñu dox fas yéene jëm fu ñuy woowee zone de captage. Il est accompagné dans sa démarche par le maire de. Grand Yoff monsieur Pape Madiop voilà ñooy nii comme nu mu ko waxee rek zone de captage mu war a dem ci bassin de rétention bi nekk zone de captage parce que ci information yi ñu jot bassin bi dafa mujjee débordé ba génn dugg ci kër yi. d'accord ngàcc bi. dox ñu dox dox dox dugul de day taxaw yaa may guidé quoi ma xam fu ma jëm ma daanoo rek yow la. moytu leen moytu moom lu ñu woowee poto poto moo fi am. waaye poto moo fi am. Seck kii kan la. voilà donc technicien bi mu ngi koy expliqué débordement wu bassin bi. voilà saa waay de nee na c'est une xam naa ni da nga juum rek un la ñuy wax geste voilà gis ngeen bassin bi nu mu mujjee def fii tali bi. ibi ibi waaw ibi rek puusal gën a Qui est sur le garage qui vont, les bus qui vont Casamance yor suñu côté mécanicien voilà côté mécanicien yi kii mooy kii bi mooy déjà marché bi ñu nekk en direct de voilà le on a perdu carrément le mur à partir de là la ñu soog a gis mur yi mais là on a perdu le mur pratiquement on a perdu plus de 600 mètres. Mais comme c'est des jeunes, donc la mort de Moussa derrière la mort de Moussa il faudrait qu'ils pompent vers ce la Pandora. Pour Voilà, il est là. Donc on est pour constater les dégâts qu'il y a ici.

fii de ñu fiy dëkk dinañ sonn lool lool lool lool le maire Barthélémy Dias s'est déplacé sur ce terrain pour voir donc ce qui se passe et éventuellement apporter des solutions pour alléger donc la souffrance des populations de Grand Yoff voilà ñu daw xool ko fu mu nekkee Et il est là, le maire de Dakar. Il est là, taxaw fii ci zone de captage. nga ko gis ni toujours à la zone. Monsieur le maire, pardon, monsieur le maire, sinon on peut faire ça ici. On peut faire ça ici. C'est bon, venez. La presse, la presse. La presse. Karim. Karim. Oui. Xaaral xaaral ñu teg seen caméra. Tegalal seen caméra. waxoon naa ko ci euh, forum de l'eau bu de Dakar ah, organisé woon euh, bu ñuy wootee de l'eau euh, ñun ñu ñu woote woon Dakar mooy l'eau à Dakar Dakar dans les eaux dañ koy amoon lu ko jàppe woon que la woon te muy dëgg laa bu wax ci metti suñu mbokk loolu képp gëm yàlla pour politique. wala si waat ci occasion bi. Ah, waaw bien sûr waxoon naa ko ba may euh, euh, fan. waxoon naa ko mbokk yi waxoon naa leen suñu yàlla may na incha allah dañuy fas yéene dem seeti tribunal bi waxtaan ne ak moom Dakar di jànkonteel ci ay jafe-jafe. Euh, malheureusement yàlla euh, dogalagul euh, entretien boobu ñu am ko ak président je pense que pas que loolu mooy néew nekk solution bi solution bi moom ñu gën a xool ñun tey lan la ñu mën a def ba suñu askan bañ a dund fi biir lu mel nii donc bassin bi mooy bassin de rétention Grand Yoff bassin bi bassin bu 7 hectares te waxoon naa ko ci euh, forum de l'eau waxoon naa bassin bi dañ koy yor maa ngi jaajëfee monsieur le maire Pape Malick Diop ak toute l'équipe municipale de Grand Yoff ci seen taxawaay ak seen liggéey waxoon naa mairie de Dakar dina jël engagement euh, liggéeyaat lii di euh, bassin de rétention luy liggéey bassin de rétention bi nag mooy juróom-ñaari milliards juróom-ñaari milliards njëkk liggéey déjà mooy que bassin bi me na euh, liggéey euh, lii di vocation mooy di capter euh, ndoxu taw pas ndoxu usé pas une fois de plus ndoxu fosse li ñu mooy bassin bi bañ koy créé fii c'était un bassin qui devait capter les eaux pluviales tey malheureusement bassin bi mi ngi capter ay eaux malheureusement bassin bi tamit en même temps mi ngi capté ay eaux usées donc ñu euh, ngi interpellé waat état bi parce que euh, ñun euh, amuñu droit laal lii di réseau ONAS di sàkku ci état bi tout de même nañu liggéey seen liggéey seen liggéey mooy nañu déconnecté le réseau des eaux usées yi ñu déversé ci bassin bi yóbbu ko ci émissaire bu ko nar a yóbbu loolu mooy liggéeyu état a état bi liggéey bu ci des état bi lay biiree la bopp kon sàkk woon ci président Macky Sall ñu ñu toog waxtaan mooy pour mën a waxtaan ñu fekk fi ci ay jafe-jafe ñoom peut-être beneen gis-gis dañoo am ci euh, ci état euh, yàlla baax na parce que yàlla moom ñëpp dafay nekkal xam naa ñun mairie Dakar maay jëlaat fi engagement xëy na la mairie Dakar juróom-ñaari milliards yi nga ci njëkk mooy ñu liggéeyaat bassin yi euh, balaa liggéey bassin bi ñuy jiitu mooy ñu curé bassin bi curé bassin bi pour bassin bi set bi parce que bassin bi ñoo gisee nii dafa tëj dafa tëj moo tax yenn euh, ndox yi euh, daal déversé que y a des eaux usées bassin la a liggéey avec un béton. bu ngeen gisee dafa toj parce que dañ ko liggéey ak ay ak ay euh, ak ndox dafa am doole ndox dafa dis parce que euh, litre ndox bu nekk day peese un kilo donc su ñu nee euh, un mètre cube un mètre cube mooy mille litres un mètre cube mooy une tonne d'eau une tonne sept hectares xalaat leen ñaata milliers de mètres cubes ndox ñoo fi nekk donc bassin bi dañ ko nar benn curé bu set wecc laata sax ñu curé ne mooy déconnecter les eaux usées que l'ONAS dégage sa bassin respecter le minimum des populations parce que c'est à eux de, de faire leur travail en termes d'assainissement ñun euh, a jàppale euh, bi suñu jàppee ñu ne que lu seen warugar ñu jàppale ñu si lii ñu njëriñ ci def suñu kenn kattan avec nos partenaires et je répète que sur fonds propres am na lu ñu mën et à l'international tamit am na lu L'objectif, c'est de curer ce bassin de set. Deuxième priorité, moi, tabacat bassin avec un voile béton. Et troisième chose à faire, c'est que le projet qui a été présenté par la ville euh, de euh, Grand-Yoff, commune de grand c'est un projet qui est assez intéressant. Maintenant, euh, su ma doomu day Pape Maño Diop xam naa ko bon réflexe béykat bi mooy mooy dellu si waat wax dëgg yàlla cette émission su ñu ko amee fii te muy capté que des eaux pluviales waxoon naa ko amaana mën nañ euh, xool ban projet lañ fi mën a liggéey ci aquaculture ak pisciculture parce que mu ngeen koo xamee gars yi jaay nañ géej jaay nañ géej donc euh, te am na fi étude euh, buy wane ni que fii ak deux mille trente cinq ay soreetul nee nañu lu ëpp ci quatre vingt pour cent jën bu ñuy lekk Sénégal jógee ci géej day jógee ci ay projet aquaculture ak pisciculture te Grand Yoff fii projet bu mel nii lu euh, muy créé fii ci ay emploi euh, macha allah projet bu mel nii tamit mën a indi en terme de de valeur ajoutée euh, ci population bi tamit sant yàlla donc je pense que même si c'est pas un projet d'aquaculture ou de pisciculture qui peut voir le jour ici ah. projet bu waa Grand Yoff proposé woon mooy un projet qui allait améliorer tout de même le cadre de vie moo gën lu ñu gis tey donc loolu laa bëggoon monsieur monsieur le maire te di masawu maire bu Grand Yoff di masawu askanu Grand Yoff mm. te euh, leen di wax ne ni que incha allah ci yàlla àndee. Mm. dinañ ci Grand Yoff ak ci askan monsieur le maire bu ñu mënee am nombre de motopompes yi nga xamante ne jox ko ko waa Grand Yoff mais également ak euh, yeneen localités yi nga xam ne fas yéene nga ko fa joxe. waaw man euh, indi na jàppale askan parce que ay moto pompe quatre-vingt-neuf cube heure wala ay moto pompe cent cube heure euh, loolu day manqué ay kër day euh, mun manqué benn donc euh, am na ay point expliqué naa ko monsieur le maire am na ay point bas ndox bi ñu jàpp yenn point yi dañ ko daj ñaar ba ñetti moto pompe donc suñuy déclenché dinañ déclenché ñaar ak de mille mille cinq cent mètres cube bi nag mooy sooy pompé ndox ndox bu foog moom fu jëm te tey émissaire bu am benn ndaw bi émissaire bu malheureusement ko bloqué dafa de plus responsable bi mooy état du Sénégal parce que suñu wax ci duñ ko laay mu nekk ci dëkk du Sénégal lu mel nii ñu koy gis te mu wóor nañu ci dëkk bi xam-xam nañu ñu fi euh, moyen ni ñu fi te solution amut c'est parce que am na responsable mais du baaraam état du Sénégal c'est du politique dañu xool métti askan bi nañu xool lii dañu xool te tamit ñoom lan moo ci seen responsabilité te dañu def seen warugar parce que loolu may wax ci ñoom ñoo doon euh, euh, sàkku ci askan bi dénk nañ réew yi dénk nañ leen réew mi tey wax dëgg yàlla lu mel nii ko gis sa xool du set sa xool euh, du set du gàcce la ci nit ñi am donc ñu ngi fois de plus delluwaat di mass euh, encore euh, askanu Bambey te euh, incha allah hivernage bi ville de Dakar dina ci def expérimentation avec des personnes privées et les communes concernées nous allons travailler sur mettre en place des réseaux d'évacuation et de pompage des eaux pluviales ak suñu xam-xam ak suñu mën-mën parce que lii bi mënuñu nangu di toog yi seetaan lii li nekk li ndogalu yàlla du benn ndogalu yàlla cuune moo tax lii am donc nag cuune boobu suñu ko guutee baaraam na góorgóorlu xalaat taxawaayam parce que loolu moo tax askan wi amoon yaakaar ci moom kon nag euh, yaakaar bi tas na ñëpp xam nañ ko wante nag nañu góorgóorlu parce que doomu aadama bu gëm yàlla day góorgóorlu loolu mooy loolu laa bëggoon wax et di gërëm di sant la maire Pape Diop Diop parce que nekkoon naa fi maire de commune te wax dëgg yàlla lu muy dund fii yàlla rek xam kii jàmbaar la donc kii jaroo njukkal la mu jar jàppale la te ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale na ko yàlla kattanal yàlla ko yàlla jàmbaar di gërëm di sant merci beaucoup monsieur Caaf caaf parce que nee naa bi taw bi njëkk amee grand dafa fees del del del del mais moom la njëkk gis dañoo indi cinq moto pompe yoo xam ne tey ñoom ñoo jóge si kër donc loolu day wane ne ñu ngi bàyyi xel tey encore bu ñu wax encore trois mois de cinq cent mètres cube heure moi je moi je dis quatre cent mètres cube heure c'est cinq cent mètres cube heure donc loolu day wane ne ñu ngi accompagner ensuite cinq cent mètres essence pour ñu mën a accompagner monsieur le maire merci beaucoup je voulais juste te remercier au nom du population de Grand Yoff dans mon nom propre merci beaucoup gis nañ lépp ñu wax si bassin bi ñun démb mu amee affaire bi amee jàppale le sous-préfet jël photo yi affaire wu moom aussi daf ma rëloon. photo photo yi en avant ministre le ministre ndox de jógul niveau de Gramine actuellement ndox mi yëpp ñu la des damu fekk alors que am bu nekk bu nekk ànd bu waroon bu waroon réceptionné ndox bu jógee si zone moo tax fii fees demul moo tax fi fees maintenant ñu ngi salué si ministre bi li mu def il nous a envoyé deux motos pompes de quinze mètres cubes pour mu mën a au moins jël ndox mu yóbbu ko au niveau de au niveau en tout cas monsieur le maire ñun suñu gëm naa ne ñu yàlla yàlla bu mu taw Grand Yoff mu mu nekk waaye na taw taw bu yem waaye gëm nañ metti metti dañ la gis àll ko loolu moo dal xel loolu laa bëggoon sànni si kàddu remercier ko merci beaucoup et puis li nga def fii tu le fais dans toutes les communes de Dakar gis naa la Diof gis naa la Ngor ce qui veut dire que yow tey fàtte nga ville de Dakar mais léegi yow sa problème nekkatul ville de Dakar mais c'est problème mooy nga gérer les autres communes qui ont difficulté ak ak ak donc li leen doy un de Dakar merci beaucoup monsieur le maire. yow tamit ñoo ngi lay remercier bu baax. yow tamit monsieur le maire ñoo ngi lay remercier bu baax. moom moom aussi da nga koy remercier bu baax a baax. oui voilà. bonsoir grand baax. ñun mënuñu nekk lu ñu gor. ay gor lañu ay nit ñu baax lañu. fi dem naa maire mer mu xataay. def sa kër tey am topp ma jot muy xam naa ko baax. gis nga yow askan bi. ku leen bëgg a fàggaagal yaay fàggaagal ah. barke rasulilaay te ñii si kanam rek la ñu jëm ah. loolu laa lay wax na ma nag lu nekk man man Njaay man jaral na ma lu nekk tu sais ah. sama sœur dama koy wax Air France mu ne ma ni Dias nii la def ah oui ku defee nii rek gor la ah te kii billaay wallaay barke sëriñ Babacar si kii gor la ah yàlla rek a tax may wax ah lu baax ku la jéem a fagaagal ba si kaw ba si suuf mooy jiitu billaay wallaay taala wallaay wax baax